alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitani rajim wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk waa Firdaws Coaching maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen mbokk yi tey nag ñu ñëwoon ak yéen fas leen indi rek li nga xamante ni mooy seen benn mën nañ ne épisode lay doon bu fekkente ni dafa gudd mën nañ ko def ñaar ba ñett bu fekkente ni tamit xaj na si benn cours ba tey ñu def ko ci benn cours ñu fa yéene nag waxtaan ak yéen euh, lépp li nga xam ne rek moo jëm ci suñu interprétation psychologique euh, des couleurs waaw mbokk yi est-ce que xam ngeen ni couleur yi nga xamante ni moo nekk ci àddina bi niñ koy utiliser dafay am impact suñu dund par exemple seetlul sa bopp poser sa bopp question ban couleur ngay gën di faral di sol tey ci ni ñuy décorer suñu kër. couleur yi ñuy gën di attirer ba bu ñuy jënd meuble wala bu ñuy jënd lu mu mën a doon loolu lañuy gën a privilégié pour suñu nekk wala pour suñu waañ wala pour suñu saal couleur boobu tamit dafa am lu muy wax ci ñun dafa am information yu mu wax ci ñun waaye ba tey ce que xam nga ni booy dem ci mën nañ ne cérémonie yaa xam ban xeetu cérémonie la couleur bi ngay sol am na message bi muy jox cérémonie bi waaye ba tey ndax xam nga ni sa couleur mën na déterminer sa état psychologique sa état physiologique sa humeur say euh, mën nañ ne ambition wala li nga xam ne tamit mooy sa mode de pensée ak say vision kon ñu gis ni couleur yi donc selon euh, mën nañ ne nation bi wala diine bi walla culture bi wala sax jigéen nga wala góor nga wala sa vécu aussi mën na interpréter beaucoup de chose sur ni ngay gisee couleurs yi par exemple certaines couleurs mën na nekk couleur bu positif euh, si yenn situation yi nekk couleur bu positif si yeneen situation par exemple ñu jël noir dañuy gis ni tubaab bi bu ñu amee dëy bu ñu amee dëcc noir la ñuy sol kon dañuy gis ni ñoom noir couleur bu triste la ci yenn circonstances yi ba tey noir mën nañ gis ni dafay présenter tamit couleuru élégance ci yenn circonstances yi waaye noonu la mën a gisee noir par exemple bu ñu demee si yenn dëkk yi nga xam ne comme dëkk yu mel ne Arabie Saoudite couleur la boo xam ne dafa neutre moo tax jigéen ñi di ko gën di sol kon couleur bi mun na dépendre ci culture bi ni mu ko gisee ak ni mu ko jàngatee kon couleur nekk lu ama am solo ci suñu dund moo tax hasard amul te couleur yu ci bay dañuy wax ni ci planète yi lañ ko inspiré woo mu am nag couleur primaire yi secondaire yi ak tertiale yi mooy couleur yi ñuy gën di faral di gis donc ci la yeneen couleur yëpp dérivé à partir de base yooyu yeneen couleur yu bari mën nañ ne ci lay ci la ñuy gis ni buñ koy jaxase ci lay génne yeneen façon couleur yi nga xam ne mooy gën a subtil par exemple boo jëlee ver y a plusieurs verts nga jël jaune y ay jaune y a plusieurs euh, jaunes weex tamit des fois y a plusieurs blancs donc ñu gis ni tamit euh, euh, gris tamit la même chose marron la même chose donc am na couleur yoo xam da ngay gis ni dafay am de plus foncé jusqu'au plus clair kon ñu gis ni couleur yi psychologue yàgg nañ ci dafay recherche ci thérapie li nga xam ne tamit mooy psychologie comportementale ak lépp li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu développement de l'être humain kon ñu gis ni études yooyu tey ci lu jëm ci wàllu même sociologie ak études comportementales yi day wane lu bari ci li nga xamante ni mooy couleur yi bien rek que rek amul science boo xam ne dañ koy jël dajale ko takk ko rek ne lii la wala du lii parce que lu tax mooy dafay dépendre aussi si selon culture yi selon nit ñi ak euh, nit ki naka la ko euh, maanaam naka lay amee perception couleur dinaa leen expliquer lan moo tax couleur yi mën a différent d'une personne à l'autre selon ni mu koy gisee bu ñu seetloo bu ñu seetloo euh, suñu bët yi ni ko yàlla bindee ak ni mu ko créer dafa am li nga xamante ni moom la ñu wax la rétine ci biir rétine yooyu dañ ciy seetlu ba tey dafa am li nga xam ne moom la ñu wax ay cône ak ay bâtonnets donc de ce fait que ñu xam ni bâtonnets yi mooy li nga xam ne moo ñuy may ñu mën a distinguer lumière yi ak forme yi par exemple boo nekkee fu lëndam mën nga bañ a gis exactement couleur li ngay gis mais mën nga gis forme bi ba tey ñu am li nga xamante ni mooy lekkoon yi nekk si biir bët bi moo ñuy permettre ñu mën a distinguer wala déterminer li nga xam ne mooy couleur yi donc kon yooyu ñu gis ni euh, par exemple am na ci nit ñoo xam ne amuñu ko juddu wala ñu ko ay malformation la de ce fait dañuy juddu rek di gis lépp mu gris looloo tax yaay yi war baax seen doom yi maladie bu raar la mais quand même ça existe de personnes yoo xam ne dañuy gis mais lépp lu ñu gis day gris comme gisu gisuñu animaux yi animaux yi xam ngeen du ñu gis couleur ñoom seen gis yëpp dafay gris comme caméra de surveillance bu ñu leen wanee image yi muy mel animaux yi noonu la ñuy gisee. de ce fait am na nit ñoo xam tamit am nañu malformation boobu du coup xëy na léegi médecine avancé na ba y a des yoo xam ne mën nit ñi mën nañ ko takk ci yenn ci personnes commencé gis ay couleur kon ñu gis ni euh, li nga xam ne mooy lekkoon dafa am. importance ci suñu dund ndax bu ñu xoolee ci la ñuy créer même li nga xam ne mooy suñu portable yi écran yi télé euh, lépp li nga xam ne visuel la audio audiovisuel du moins lépp luy wane ay image comme couleur yi nga xam ne mooy rouge jaune vert nga xam ni d'habitude mooy may moo ñuy may mooy couleur primaire yi nga xam ni suñu bët day am facilité di ko capter kon de ce ñu gis ni kon mën a gis couleur déjà xéewal la bu rëy yàlla suñu borom deful dara par hasard kon ñu gis ni li nga xam ne tey mooy cône yu ndaw yooyu nekk si suñu bët yi euh, dafa relié wu ak li nga xam ne mooy suñu ay neer du coup moom mooy transmettre information bi ci suñu cerveau suñu cerveau mën a capter li nga xam ne mooy couleur bi. kon de ce ñu gis ni des fois comme ni ñu ko waxee am na nit ñoo xam ni mënuñu distinguer les couleurs parce que xëy na seen neer yi du am récepteur bu normal du coup mun nañu am problème distinguer les couleurs même bu ñu ko xamee mën nañu am problème mu distinguer ko. kon ci noonu tamit ci li ñuy gis ne euh, couleur yi dafa am impact bu physiologique aussi si suñu dund kon ba tey ñu gis ne am na ci couleur yi nga xam ne ni muy impacté suñu physiologique suñu yaram mm, ci niñ koy euh, euh, récepteur bi ni mu koy captiver si suñu ay bët mooy couleur yi nga xamante ni d'habitude mooy couleur yi am lumière bu bu gàtt par exemple mën nañ ne bleu vert rouge violet ay couleur la yoo xamante ni kon ñu gis ni euh, couleur yi nga xamante ni mooy le rouge violet vert bleu impact physiologique bu mun a am ci suñu yaram rek mooy dafay euh, ralentir li nga xam ni mooy suñu rythme cardiaque waaye tamit jox effet bu euh, bu normal li nga xam ne mooy suñu respiration. kon ñu gis ni impact physiologique boobu c'est médicalement prouvé looloo tax tey boo demee ci hôpital yu bari. am na ci couleur yoo xam ne doo gis ñu di ko peinture chambre chambre hôpital yi par exemple man maa ngi Italie la plupart des hôpitaux da ngay gis ni couleur yi am longueur d'onde yu gën a euh, yu gën a moyen yi euh, nga xam ne seen zone d'ombre gën na moyen moom la ñuy gën a utiliser mooy couleur yi nga xam ne c'est pas intense couleur yu discrète yi mais pas aussi trop discrète ni aussi trop fort ci mel ni ver bu xaw a clair wala bleu bu xaw a discret wala des fois blanc bi ñu rax ko ak euh, tuuti tuuti tuuti euh, mën nañ ne tuuti euh, jaune wala beige mais da ngay gis ni par exemple hôpital psychiatrique yi nga xam ni nit ñi bëgguñu dara lu cap seen attention boo fa duggee da ngay gis ni gris lay am wala blanc wala bleu bleu ciel. parce que lu tax mooy lépp loo xam ni lu foor la mën na captiver seen attention ba tranquillité mën na leen bañ a yomb kon couleur yi nga xam ne ay orange ay jaune même ay rouge bordeaux façon am na ci couleur yu gën a tàng yooyu nga xam ne dafa fort yooyu mën nay nekk li nga xam ne dafay accélérer day def effet contraire day accélérer suñu rythme cardiaque tension artérielle yi ak li nga xam ne mooy suñu euh, respiration si circonstances yi nag lay agir pas que boo gisee couleur nii dalay jox boobu impact di déet par exemple mën naa joxe mën naa joxe benn kii euh, benn exemple bu ndaw tey nit ki mën nga am par exemple benn événement bu xew événement bi mën na nekk euh, bànneex wala mën na nekk naqar mais nit am na nit ñoo xam ne bu ñu dugg see ni ñuy solo rek seen solo day menaçant day nekk loo xamante ni dafay mel dem message bu ñuy transmettre même bu fekkente ni xëy na ñoom ñu ko sol sax inconsciemment daf may fàttali barki démb rek euh, ndeysaan ma amu <laughs> bi ma defee maa ngi koy maa ngi lay nuyu de partage de passage bi ma defee sama vidéo bii di euh, tontu si euh, situation bi fi xewoon col bi ma sol mu ngi nekk colu militaire bi ma koy sol c'était inconscient j'avais même pas prévu que damay def sama damay def euh, li nga xamante ni mooy vidéo bi donc vidéo bi dama ko def rek euh, par hasard ni mu ñëw sama xel ma ne ah que am naa tuuti temps naa ko def mais mën na nekk moment boobu li ma doon vivre intérieurement bëggoon naa def vidéo bi xaw moon quand moo nekkoon moment bu opportun et bi ma koy def mu coïncider ak li ma sol li ma muuroo mu am message boo xam ne daf koy joxe te ko gis ak li may wax euh, da ngay gis ni dafa am benn association bu incroyable des fois on fait des choses inconsciemment soi-disant que yëguñu ko ti tinuñu ko préparé wuñu ko fekk na suñu subconscient préparé na lépp moo tax cerveau humain comme ni ma koy waxee machine la bu doy waar bu dangereux. waaw kon ñu gis ni kon li ci ëpp solo rek mooy. Euh, couleur yi impact bi muy gën a am ci suñu dund rek mooy ci suñu esprit suñu xel suñu xalaatin ak tamit ñun niñ koy jàppee wala niñ koy dundee wala bu dee dafa am importance suñu dund. ba tax na munuñu ci dara ñu bëgg koog ñu bañ ko couleur yi dafa bokk suñu dund te day impacté naturellement suñu dund mënuñu ci dara dafa nekk lu bokk ci suñu dund. ba nga xam ne tey dem na ba kenn mënu ci mucc parce que yàlla suñu borom moo ko boolee ci li nga xamante ne mooy li ñuy dund ba tax na bu ñu bàyyee xel am seetlu léegi vidéo bi euh, audio bi incha allah ñu déglu ko calme dinañ gën a gis li ma leen di wax. kon ñu gis ni tey nit ki boo duggee par exemple booy euh, promenade wala sax ngay dawal sa oto ba romb zone boo xam dafa bëri verdure da ngay am sensation de bien-être ndax verdure espérance la euh, da lay jox sensation d'espoir bien-être nature day nekk loo xam ni vraiment daf lay tu te bien. tey tamit boo doxee ba nekk ci plage da ngay sentir sensation de bien-être parce que bleu bi nga xam ne mooy des fois mooy associé ak euh, ciel bi ak euh, maire bi da gis ni dafa am sensation bu la waaye tamit couleur yi mën na eh, nekk loo xam ne suñ signification mu ngi dépendre si suñu dundu naka lañ ko dundee suñu expérience ma expliqué wu. bëri na doomu aadama tey di aayal gaaf dara par exemple nit ñu njëkk ñi lu bëri lu ñu doon aayal gaaf c'est a au nan laa leen koy expliquer tey di nga gis benn famille ñu ne ñuy tere benn couleur wala ne couleur bi jànq du ko sol wala couleur bi ku ko sol nangam wala couleur bi wala sa nga gis ni ragal benn couleur man gisoon naa benn waaye boo xam ne <laughs> jabar ji bu daan muuroo lu ñuul <laughs> rek moom daal danaan moom lu ñuul moom ko ndaxte dafa am benn moom ci ci ci vécu am muy un jour ma di ko laaj ma ne ko mais lu tax yow noir daal nga ni daal bëggoo sa jabar kolokol bu noir c'est étrange quand mu ne noo dafa amoon benn euh, jabaru tànt euh, jabaru papaam bu ndaw koo xam ne papaam bu ndaw la euh, papaam bu ndaw moo ko mës a takk ndaw si dafa tàmmoon di koloo lu ñuul te ndaw si ci dundam presque am na ñett ba ñeenti jëkkër yu dee en fin de compte moom affaire boobu bi mu nekkee xale daf ko impacté te moom nee na musul fàttaliku ndaw si fu mu solee sol bu euh, couleur sol bu am couleur ci fu mu koloo col bu am couleur mën na sol yëre couleur mais quand même col bu ñuul rek lay koloo te moom pour moom ñuul moom col bu ñuul égal xëy na dañ koy tënj du coup gis nga ni muy associé événement bi ak couleur bi tey de la même manière nit ki mën nga am benn événement dal la ci sa dund bi mu lay dal dafa am couleur boo soloon wala bi mu lay dal nit kala ka teg am couleur bu mu soloon ma joxe beneen exemple encore une fois il arrivé benn euh, nit ku ma mës a samay séance coaching ma joxe exemple boobu moo gën a concret nga xam ni dafa ne moom am na couleur boo xamante ni par exemple munu ko sol par exemple bu waree def euh, séduction war a préparer biir néegam ak boroom këram moom am na couleur boo xamante ni moom munu ko sol muy rouge nee na couleur rouge dañ ko def couleur de l'amour et pourtant moom munu ko sol. et que bëgg na ko utiliser mais heure bu ko utiliser daf koy day sulli traumatisme am te moom daal bëgg na comprendre lu tax du question dafa am sub euh, du question dafa am ay su day dafay aayal gaaf quelque chose wala dafa sub euh, naka lañ koy waxatee sa fàtte naa moo bi mais quand même moom affaire bi daal daf ko impacté de trop ma ni ko couleur boobu lan la lay fàttali en fait parce que pour nga xam couleur bi lu tax man mënuma ko digérer wala boog su ma ko gis daf may susciter peur wala anxiété parce que am na événement bu mu lay fàttali mu ne ma effectivement parce que couleur boobu dafa am bés euh, ñu sàkku ko te bi ñu koy sàkku ki ko sàkku néeg bi mu ko sàkkoo dara bi ñu laloon dara bu rouge la te darab boobu rouge bi mu rouge tax na moom mu mënul laal dara bu rouge xalaatul sol yére bu rouge pour séduction parce que elle n'arrive tout simplement pas kon loolu da ngay gis ni ça thérapie bu bu longue pour nit ki mën a accepter que ni du couleur bi moo tax événement bi am du question it bu defee couleur boobu événement bi day am parce que la plupart des traumatismes nit ki day yaakaar bu ko euh, li ñuy wax naan euh, association des des traumatismes mooy nit ki bu associé traumatisme ak couleur wala ak parfum loolu la ñuy wax li nga xamante ni tamit mooy suñu euh, suñu intelligence sensorielle yi parce que ñun dañoo nit ñi dañoo am ay sens ay sens. sensoriel yi mun na nekk ak li nga xam ne tamit mooy ni ñuy euh, fàttaliku nit ku nekk dafa am ni muy euh, magasiner li nga xam ne mooy c'est naka lañ ko woowee c'est euh, ah, nit ku nekk dafa am ni muy stocké li nga xam ne mooy c'est c'est souvenir souvenirs yi nag mooy fàttaliku yi am na ñoo xam ne tey bu ñuy enregistrer seen cerveau parce que loolu du volontaire c'est involontaire seen cerveau buy enregistrer day enregistrer associé par exemple. cerveau tey bu fekkente ni dafa am damay joxe exemple ndaw am na ñoo xam par exemple seen première nuit de noces dafa am parfum bu seen jëkkër xeeñoon parfum boobu fu mu leen xeeñ wala boog dafa am bu seen jëkkër tàmm di xeeñ tey seen jëkkër bu tukki woon wala sax ñu génn seen kër rek parfum boobu xeeñ leen subito daf leen di fàttali seen jëkkër parce que parfum bi dañ ko associé ak benn être humain boo xam ne moom moo ko tàmm di di def ba affaire bi dem ba impacté seen cerveau ba à chaque fois odeur boobu santi la même boo demee ba divorcé gu waa ji keneen ku mën a xeeñ parfum boobu ci kaw teer sa xel bi ci waa ji lay dem mu nekk li ñuy wax euh, euh, souvenir yi nga xam dañ koy associer avec des événements wala des parfums wala des euh, wala li nga xamante ni mooy des couleurs donc ñun dañu am suñu ay mémoire sensorielle yi nga xam ni ci la ñuy enregistrer événement ba tey ci li ñuy gis ni doomu aadama mën na am benn événement xew bi mu xewee mu associer ko ak benn musique mooy sensorielle yi sentir dara benn son soo boobu fu mu ko fàttalikoo rek mu am fu mu ko dellu man maa ngi ni tey déglootuma musique ça fait des années mais am na yenn musique Youssou Ndour yoo xam ne sama m'a tellement marqué bi may nekk xale bi ma gënee nekk xale bu tuuti ay quatre ans cinq dund ak sama famille et mais à fois teg ko dafa am fu non c'est tellement nostalgique boo boo ko bëgg déglu sax da koy déglu parce que c'est quelque chose daf lay rappeler quelque chose même bu fekkente ni fàtte woon nga yow moment boobu sa dund musique boobu bu ñëwee rek daf lay fàttali des souvenir yoo xam ne yow boobu yaa ngi amoon 4 ans wala trois ans et que tu te dis waaw kon ndakate lii fàttewu ko woon si sa subconscient mu ngi ko magasiné fenn mais à peine que musique boobu même bu dee bi nga koy déglu yow xamoo woon dara mais image yooyu day ñëwaat ci sa bopp comme si c'était da nga am benn déclic moo lay wan ni cerveau de l'être humain dafa grave ci noonu ngay gisee tey nga mës nekk ci benn lieu. nga jékki-jékki demaat ci lieu bu xaw a lieu boobu mu mel ni yow lieu bi da fi mus a ñëw wala da nga fi mus a dund wala da nga fi xam et pourtant c'est première fois xëy na nga teew ci foofu mu mel ni événement boo dundoon te fekk na xëy na lieu bi dafa am lu mu la rappeler wala am na sa am nga sa champ visuel captivé na des éléments yu familier ci des circonstances différentes nga enregistré ko et que là tu sens que lii daf la familier kon loolu ñu xam ko dafay am tax mooy des fois par exemple am na nit ñoo xam ne si seen famille am na am na jour yoo xam ni dañ ci yàgg am malheur ba dem ba jàpp ni jour boobu mu am ay gaaf te comme ni ko yàlla suñu borom waxee jour yi moom amuñu benn problème mais problème bi fan nekk. y a eu euh, benn histoire bu ma mës dégg ci sama benn euh, professeur mu di ko nettali nee na dafa am benn ndaw si boo xam ne da ko doon coacher ndaw si nag dafa am date boo xam ne ak jour boo xam ne à chaque fois bu doon ñëw ci année bi année bi maanaam chaque année. ci euh, jour boobu ci mois boobu ci date boobu moom dootul am jàmm et que loolu lu tax mooy dafa am ay événements yoo xam ni te man mi dund naa ko et après nga même boo ko buggul même boo xamee ni sunit nga même boo xamee ni danga am tawxiid même boo xamee loolu bidaale même boo xamee loolu ay ay naka laa ko mën a woowee euh, ay chose la yoo xamante ne ay gaaf la yow sa servo dafay bëgg a xëccu fàttali la loolu ndaw si nee dat boobu par exemple yaayam da ca génn àddina ñu toogaat un an après même date bi même weer bi doomam feebar ci amee ñu toogaat même date bi même weer bi doom ji euh, génn ci àddina ñu toogaat même date bi même weer bi mu divorcé ci en certain moment moom mois boobu weer boobu ak date boobu moom da ko aayal gaf complètement fekk na lu tax mooy dafa somatisé mooy le fait que jour affaire bi dal na ko benn yoon par exemple première date euh, dat boobu bi mu jotee première événement bi moom jàpp na dat bi parce que lu metti la lu douloureux la cerveau bi enregistré na ko beneen moment ci date boobu buy ñëwaat rek cerveau bi dafay jox message alerte date bi mu ngi ñëwaat bu ko defee mu attirer instinct am attirer des choses négatives et que mu commencé di xalaat des choses négatives et que des reproduire par force parce que moom moo pare préparé pour mu ñëw et que lu xew toujours boobu rek mooy moom marqué na ko à man il m'est arrivé benn weer boo xam ne weer boobu mun naa ne plus de quatre ans weer boobu day am des choses yoo xam ne dafay am ci sama dund et que dem na ba nga xam ne <laughs> fallait que ma def beaucoup d'efforts pour mun accompagner sama bopp laay wax pour mën a éviter sax di ko jox benn importance wala ma éviter nekk ci leneen pour fàtte ko parce que en cette masse daf lay rendre nga paranoïaque parce que comme ça da ngay toog di xaar di préparer wu événement boobu ñëw et c'est quelque chose d'atroce et que doo comprendre lu tax pourquoi du dara lu dul sa cerveau moo ko moo ca jox moo ko jox importance moo captiver mois boobu parce que lu douleur daf ci xew wala mu nekk bànneex bu neex boo xam ne nga bu ko defee nga commencé di di baaxal jour wala di gàntal jour te traumatisme yooyu yëpp c'est lié à suñu mécanisme nu muy fonctionner léegi nag ñu revenir à nos moutons bàyyi nañu couleur yi dem ci ay traumatisme pour wan leen juste rek euh, couleur yi nu muy captiver sa enfance par exemple tey nit dina nekk ak euh, nit ku mu bëgg lool mu bëggoon benn yére yére boobu tey mën na ko mën na mën na nekk yére boo xam ne par exemple sa yaay doon sol benn genre vax di koy sol tout le temps tout le temps tout le temps mu dem ba génne àddina wala yow sa nga voyagé dem ci beneen dëkk koo gis mu sol vax boobu rek dafay mel ni sa yaay la balaa dafay mel ni affaire bi dafay familier balaa ngay def déclic naan ah du sama yaay fekk boobu cerveau bi dem na jëli information pour wala ne vax bii de ki ko doon sol jox la image yi pour nga réfléchir jox la ay lien pour nga mën a fàttaliku fàttaliku boobu kon couleur yi am solo la mbokk moo tax mbokk soxna yi ma di leen joxaale benn astuce profito ci cours bi jox leen benn astuce et que euh, parce que man damay euh, damay nekk ci li nga xam ne mooy euh, euh, jaay ay parfum et que ce sont des de luxe tey bu ñu def suñu formation ci parfum yooyu bokk na ci psychologiquement parlant li ñu njëkk a jàngal parfum thérapie la déjà parce que avec euh, beaucoup de dafa am parfum yoo xamante ni daf lay may énergie am parfum yoo xam ne daf lay may da ngay nelaw am parfum yoo xamante ni daf lay jox euh, nostalgie d'amour donc gis nga couleur yi ni muy amee impact ci ñun parfum yi c'est la même chose donc may profité mooy ut leen benn parfum benn parfum pour seen nekk ça veut dire que bul def loo romb ci parfum jënd déedéet utal benn parfum ba même bu dee parfum bu cher la wala parfum de marque la parfum bu frappant chaque nuit parfum boobu dee koy parfumé woo sa yaram nga xam ni sa boroom kër fu mu la jegee parfum boobu da koy day cerveau am da koy enregistré par force mu dara looloo raw njabar bu dee da bëgg a téye seen jëkkër liggéey leen looloo raw njabar gis nga sa parfum boobu moom fu mu mën a dem ci àddinaam xet lu xaw a nuroog boobu bu bu ko cerveau am captivé rek automatiquement sa xel day dem ca moom mooy li ma leen waxoon ci commencement bi te da ngay gis ni tey même bu yàlla dogaloon tey mu dem ba am beneen jabar kooku utiliser parfum boobu jour moom du mën a nekk. du mën a sikk ak moom dara ndax lu tax mooy sa image mooy ñëw perturber boppam du coup li ñuy wax ne euh, séduiral sa góor ak sa parfum et pourquoi pas nga am divers parfon par exemple parfum boo xam ne pour journée bi la parfum boo xamante ni pour néeg bi la parfum boo xam ne pour booy booy julli la bu ko defee mu nekk loo xam ne tey dafay différencier li nga xam ne mooy sa mode de séduction et mu nekk des parfums yoo xam danga da koy jox importance. waaw mbokk donc may wax ni euh, pour ñu xam ni couleur yi dafa am solo ñu ngi leen di indil beneen vidéo beneen audio du moins boo xamante ni dañuy détailler chaque couleur ak li nga xamante ni mooy impact euh, li nga xam kon mooy signification yi kon ba pare bu ñu indee signification yi benn ci couleur yi nga xam moo ëpp importance. après soo soog indi euh, couleur bi ngay utiliser xëy na ak impact psychologique bi wala ni muy déterminer sa personnalité ak chaque couleur message bi nga xam ne rek moo nekk ci ginnaaw.